pour defar la kon da ngay dooleel say doom mm-hmm. famille mm-hmm. pour bés boo fi jógee rek ñu mën a jël relève bi rapidement te kenn du leen jàppale mm-hmm. c'est important c'est important ce que je dis donc ça commence d'abord par la famille faut renforcer la famille et après tamit sedd tamit ñi nekk si biti ça fait partie des cinq piliers de l'islam ah oui jox ñi jox artiste ça veut pas dire que da ngay ah man damay jox artiste dama ah participer damay participer si li liggéey artiste bi dafa yore société am. Mm-hmm. yore na société am na. dafa soxla ku ko jàppale. Ah, mais pas wane wu. da parce que day mm-hmm. liggéey. mu wéy. dafa war a fay artiste am yooyu bi. mais non l' artiste day liggéey. Mm-hmm. suy liggéey da nga jàppale. foofu sax laa bëggoon ñëw parce que. man wane wu dafa am ah. ñuy wax ne le train qui arrive à l'heure xam nga loolu moom euh, n'intéresse personne mais ñun fi ñuy euh, attirer attention nit ñi. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy ñi nga xamante ne. Mm-hmm. ñawuñu fi xotteeku. xam nga li li li jag moom jag na ba pare. loolu kay macha allah yàlla na jëm kanam. Mm. ñun li tax ñu toog fi mooy taaru société bi mooy li nga xamante ne tey mi ngi ci société bi di ko engrainer ñu gis muy dem yëf yi di gën a metti. te chaque jour ñu ciy teg suñu bët bii. mu nekk ay ay preuve yu loo xamante xamante ne boo soxlawul jeex danga nga naan nii rek gis ko mhm. donc ndooy tey fi ma doon ñëw ndeela mi ngi wax lu am solo mhm. nit nga koy may jën nga wan ko nu ñuy nappe moo gën te xale yi ñu leen di inculquer dès le bas ay ay ay euh, ay euh, valeur waa qualité yoo xamante ne vraiment voilà mhm. dañuy màgg jàmbat mag tamit warul jàmbat te da nga war a teg lépp ci kanamam ba du du ramb dara lu mu gis ci biti du ko jaaxal xale nag su bàyyam deful la ko war dina jàmbata ah. y a des pères de famille yu seetaan jamono ji kàkkatar xamuñu ban classe seen doom di def te ñu ngi fayal ay jàmbur école xamuñu seen ban classe la seen doom yi di def te ñi ngi fayal ñeneen école ah, mais ndoy ndoy kooku noonu lan lañ ko war a def mais kooku kooku mérité wul si kooku c'est un géniteur yaa di <laughs> xam nga géniteur mooy defar koo xam ne day defar doom mhm. ak koo xam ne c'est un père de famille bàyyi la mhm. bàyyi day uuf jabaram uuf ay doomam encadré leen teg leen ci yoon di topp toppatoo seen santé seen lool loolu kooku mooy waajur mhm. waaye un mooy koo xam ne defar doom xale yi ndaw yi mhm. sax mën nañoo defar doom c'est minable c'est c'est c'est des minables gros gros grosso modo góor yooyu ah c'est des <laughs> minables gu xamul ban classe la sa doom yi def tu es minable c'est ça c'est de la minabilité totale lool il faut aujourd'hui beneen bi mooy mhm. du affaire xaalis sax ah. am na sama sama waay mi ngi koy wax. da ngay gis góor boo xam ne tey jii baayam day am tool mun fa ñukk tool ba dem toolu sëriñ ba sala am ba alaar la. man bala maa bayal benn sëriñ sa ab toolam sama toolu baay set. c' est ça il faut aussi dire la vérité. soo dee naan sëñ bi nangam nangam dara sëñ bi lu mu la ñaanal du jàpp. <laughs> wallaay sa ñaanu bàyyi gën a tool yokkal sa volume. mais dëgg la. c'est bàyyi sa toolu bàyyi muy boy nga naan hmm. da ngay dem di bay toolu sëriñ bi. pour hmm. la pour lan. loolu sambalaar la te mm-hmm. am na booy bari yoo ngi koy def kenn bañul ko dem toolu sëriñ ba wala toolu sa mbokkum taalibe naa ñëw fi xotteeku daal wax toolu bàyyee nga nee nga bari ñax sa baay bi su mu ne mu yendu ci tool yi di ngacc ngacc nga dem di tool di ñaw di bàyyi li beneen tool bàyyi jàmbur pour lan mais loolu doo ci am yàlla doo ci am yonent c'est ça le problème sëriñ bi sax sant la lool mm-hmm. sëriñ bi nga topp ci boppam dafa bay tooli baayam moom mm-hmm. ba mu set woo te ay taalibeem ñu bàyyi ko mais taalibeem yooyu sëñ bi ci boppam ñoo c'est que nit ñi ñu bari dañoo yeewul da am na ñoo xam da ngay jàng ci ñoom àdduna mm-hmm. nga soo demee sa kër sëriñ xool na muy comporté woo nga jëm koo roy soo ko roy soo koy roy di baax mm-hmm. sooy roy sëriñ bi bu baax mm-hmm. sëñ bi jabar ji benn sëriñ ni ko fii sàmbalaar ay soxna yu baax lañu yor yor kër yi baax yor oto yi baax respecte seen papa respecté seen yaay lu ñu am defar seen seen seen seen i waajuru góor ak seen i waajuru jigéen def ko ci seen soxna def ko ci seenu njaboot mm. mais royal sëñ bi mm. Mm. Mm-hmm. soo ko ku bëgg a baax royal ab sëriñ mais grand nooy te yeewoo ah soo yeewul nag mi ngi noonu loolu la ñuy wax boo yaruwoo boo boo yaruwul yeewoo alalu borom barke ngay doon dañ lay jëriñ doo jëriñ sa bopp dëgg la c'est ça boo demee fenn pour nga roy il faut nga yeew mm-hmm. mën a xool xam xam lan ràññee lan ngay def mm-hmm. moo tax éducation bi ñu doon wax sànq. Mhm. gis nga ne chaque instant ñu ñëwaat kii copier dafa am xel. dem fenn di ràññee loolu si une grande qualité ah. qualité bu mag la de du yëfu ay ah. caaxaan de mhm. du lu ndaw lu rëy la. nga dem fenn gis lu baax mën ko roy. Mhm. xàmmee di tànn jël naa lii bàyyi naa lii. c'est pas donné à tout le monde ah, ah. c'est important Ndoye man da sa biir wax dama ci dégg wax bu am solo. nga nekk dafa am ñoo xamante ne tey dañu am euh, doom duñu xam sax doom mais Ndeye Ndoye tey dañu nekk ci. par exemple nga nekk ci famille boo xamante ne polygame la. Mhm. am na trois wala quatre jabar mu am peut-être. <laughs> si je ne m'amuse ay vingt doom mhm, mhm. wala trente doom yooyu mais kooku tey euh, je pense que xëy na foofu sàmba àllaar parce que xëy na mënul mënul mënul euh, gérer ñooñu ñëpp doom yi bëri nañ am na loo xamante ne xëy na ci yaaji la wala yaajee war a gérer mais kooku tey du sax ma àllarndooy nooy non kooku moom c'est que loolu xam nga am jabar am ak ay doom yooyu loolu loolu leneen la ah. mais problème mooy mën nga mën nga am vingt doom di leen toppatoo nga am ñaari doom mun doo leen toppatoo affaire bi ci ci ci ci ci xol la gis nga gis nga yombal xiyam di nga déggee dégg mag ñi naan dinañ la laaj sa njaboot gi la yàlla joxoon noo leen sàmmee mm-hmm. noo leen sàmmee loolu dafa de tout le temps da nit ñi dañoo war a bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax a baax mm. imagineel tey jii nga dem guddi jotee nga dem reere ji say dibi mm. sa waa mm-hmm. reer ci mbaxal mi mm-hmm. fii ngay gis Sénégal nit koo xam ne ab commerçant la man xam naa j'ai j'ai connu des commerçants yoo xam ni c'est des millionnaires xaalis bu bari lañ yor soo gisee seen jabar yi yërëm leen mm-hmm. Mm-hmm. soo gisee seen doom yi yërëm leen mm-hmm. loolu bu loolu seen papa seen yaay seen njaboot yeeg yooyu soo mënta soo sa jabar say doom suñ ci mënta dund ko ko jarul yàlla dala ko jox bu gisee seen doom yi da ngay defee dañoo am poids sur corps dëj bu am ci koñ bi yow yaa koy dëj nga rey nag billahi ñi ñi sa kër ay malade doo nga fa ne loolu moo am ci dëkk dëkk bi yor 4-4 mën a sol ay jasneer yu niin te sa jabar day ji tabaski ba tabaski lay am bu mu bees wala xaar balaa ngay laaj ci loolu nañ bàyyi kii parce que yow dama amoon question bu am solo looyu daana la su wasin suñu heure bu ñu amee doom lañu am bu mu bees te seen jëkkër dafa ba mi ngi ci dëkk bi am a yor ko. jërëjëf ñoon su dee sawara foofu solo wax Pendo la bëggoon a dëggale tey euh, Samba Allaar nee naa leen dafa nekk ci côté famille bi papa mhm. yaay rakk dafa dem ci côté mhm. jëkkër ak jabar mhm. dafa dem ci côté employeur ak employé ki nga xam ne tey dafa yor ay employé di leen gérer di leen donc Samba Allaar dafa dem ba ci foofu donc man point bi ma la bëgg a mooy ki nga xamante ne tey jëkkër ak jabar la ñu nekk ci ci ci kër gi di sëy amaana yow Euh, li nga war a defar sa jabar te mooy obligation la. Mhm. da nga ko war. Mhm. waru war non seulement daf la war mhm. defoo ko nga génn ci biti di jaay jomba ñaaw la nga war a defal sa jabar yëpp nga génn gis benn alima wala benn gis benn yaa awa di ko def ak looloog loolu te fekk ne yow fa nga war a ñaw wala fa xotteeku ñawoo ko ci biir kër gi maa la ko wax nit jëndal na fi sax ci mbedd mi oto te sa jabar day jël ci subhanallah maa la ko wax. dëgg nga jëndal jigéen oto sa jabar di jël taxi. Mhm. weer wu dee ngay fay location këru jàmbur te yow sa jabar daa luwe. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. am beneen boo xam ne it da ngay am ay rakk nga bokk ak ñoom day ak bàyyi ñu feebar te sa jabar ku ko gis ni suuy. sa jabar rafet bu bugg a ñi nga bokkal benn ween bokk ñoom benn biir ñu toog di souffrir nga di ko gis. sambalaar la. bu mag sambalaar loolu sa jabar ku ko gis. tubarkàlla mu ñee ko mu rafet ba mel nu ko neex nga am rakk yoo xam ne ñi ngi souffrir te nga war leen a mën a même bu dee